kaal mbokki àddina lu waay gàtt dégg-dégg dégg nga ni sëriñ seex tawféex ku jëf teg moom sa aajo paj di yëngu lépp lu jëm si wàllum pajum cosaan ñi ràññee ko lool fii si Sénégal ak bitim réew lépp lu jëm si wàllum seet bàyyi koog moom bés bu la seetalee nga mel ni seetu nga jàkkaar lool lum la waxtu du dañ xalimaam du laal suuf ku wax sëriñ seex tawféex xam ko si jaaro yu efficace yi nga xam ni mu ngi dëxëñ ci biir alxuraanul karim aada ak sunna li ko tax a jug mooy yëg avancement si sa barabu liggéeyukaay ubbeeku ba faw ànd ak bayre bu saawaan baawaan aar la biir ak biti daa nga bëgg kayit bés boo jëflanteeg sëriñ Cheikh Tawféex foo bëgg dem si àddina di fa dem lépp mu teg ko si yàlla ak yonente beeg alquraanul karim indil ñu ay nomb ak ay càngaay yu mucc ay yi nga xam ni boo ko jëfandikoo kenn du la liggéey te ku la liggéey mu dellu si moom jigéen ju gis règle muy métti lool hémorroïde doxum siti sono la lool maa ngi lay digal nga jëfandikoo garabu sëriñ seex tawféex yi fépp foo nekk si àddina mën nga jëflanteeg sëriñ seex tawféex si numéro téléphone yi neexul ba neexul waaye kenn du sëriñ seex tawféex si mim réew asalaamaaleykum mbokki internet mbokki youtubeur mbokki Sénégal mbokki téléspectateur si fu seen bii di Allô Sénégal dañu yaatal leen si déclaration bi ñooy sur soir te gis nañ ni ginnaaw bi nga xamante ni euh, ki nga xamante ni mooy Sangomar euh, ginnaaw bi nga xamante ni am na ay bagage moom Dougar euh, Dougar commencé bi wëlbati xel mi di ko jaxase loolu lu ne lu ne ba tey Sangomar nekk si yeneen tolof tolof si yeneen guddi ko wax amoon na soxna ñàkk ko war a amaat soxna bëgg soxna ak nan la si war a demee loolu lépp di leen si ñëw mais ginnaaw loolu Sangomar ginnaaw bi mu demee nag xam na ni te yàlla def na ay mbokkam la am te lii mu jëm li mu sum ay mbokkam ñoo ko ci may jàpp te mu wërëwal bi ko dafay wax ni lu am am buy bàyyi sa mbokk ndax lan tey boo demee ba toll tey boo demee ba ñàkk dangay wutuwaat say mbokk ngeen jàppale mais ba nga amee àlla bàyyi sa mbokk dem ci mbokk yaam ñoom boo ñàkkee lan lay bàyyi moo tax fii ñu ne képp koo fi mbokkam moom mi ngi téye mbokkam olof njaay ni boo demee ba xamatu foo jëm wal batikuwaatal dafa yéex a wal batik te dëgër bopp yaakaar ne bu yàgg la war a soxlay mbokkam ndax lim amoon loolu ku ko am da ngay xam nan ngay dundee say mbokk mais seen mbokk di la woo di la woo nga yàkkal alal jeeta fekk na lu loolu moo tax boo ji beew dee alal ji du du la suuli de mais say mbokk ñoo ñëw taxaw ngore xam ne lu yàgg-yàgg seen mbokk nga kon Sango Mar lii dafay war a doon loo xam ne daan see war a bàyyi xel gis nañ ko ñëw na si géej di ko expliqué war a dem si baayam ak ki nga mooy géej di njëli yaayam moog yaayam bokk ndey ak baay kon ngal la waay sanguma géy te defal na lu ne toppatoo la nga yaakaar ne sa alal la bëgg déedéet dugg sa alal boo daa fekkul mu bëgg am fu la teg ak fu la yóbbu beneen mi nga xamante ni <clears throat> mook sëriñ bi sëriñ bi ni ko li nga gis ci li nekk ci kii moo gën a raw li ki nekk ci ki gaañu ah sanguma di nattable di bañ a ñattable bëgg la yenn saa moom lépp loo mën dugg sax danga koy seet mais lu doon ci wàllum sëy daa jël koo xam da ngay ñaan yàlla moom dëkk ak moom benn moo suul wala nga suul ko ñaan am see moom ak njabootam kon loolu daan naan seet seet lu xool ku baax a baax mais boo demee ba tamit ay problème am ci buy tëb tëb rek bàyyi déedéet taxawal nga wut ndax fii loo fi gis rek mën na koo saafara mais bu neen lii da see nekk nga ne ah lii la mun moo ko saa saafara bàyyi ko noonu déedéet pourquoi pas déedéet ekkaleel nga tàntuwaat waaw mooy loolu mais bu waxee nga ak beneen nga xamante ni sëriñ bi jox na ko muy mu bañ a jëfandikoo oto diir muy takk soxna soosu te gis nañ Bugaar dafa ma taxaw pour jël bakkanu ki nga xamante ni mooy Bugaar mooy mooy Sango Maam est-ce que dina ko jël wala du ko jël ndax euh, ki nga mooy waris dafa soxla lool instant bii Sango Maam fekk kële nga xamante mooy dabi te dafa jot si ñoom li ñu wax kon tey bu ñu ba changement yëpp di am am na lu ko waral. yaa ngi des am na lu ko waral beneen bi nga xamante ni te jigéen goo xam ne kon la jigéen goo xam ne ku am gëdd gis nañ ginnaaw ci beneen kër gaañu mu nekk fii moom doomam tey dem na ba gis góor gu ko bëgg góor bu ko def soxna teg ko fa ko borom këram ba teewoon tey mu dem waxtaan si doomam ndeysaan tey am na ñoo xamante ne bi si borom kër génnee àdduna seen i doom sax duñ leen concentré tàggat loolu ñu def duñu yëg seen doom mais dafa am ñoo xamante ne seen problème que génnee tey ñoom li ñuy def seen doom mooy seen i kilifa ndax boo waxee ñu ne am nañ doom te bëgguma sama doom di sëgg si réew mi kon ki nga xamante ne mooy baale tey lii mu def waxtaan si doom ne ko ah, te su ma demoon am beneen borom kër yow laa gis ma wax ko li mu gis mais tey da ngay gis xam dafa am ay doom sëñ bi borom këram génn àdduna xool si doom yi da ko dafa war seen i di dund lu ne kon lii lépp rek war nañ see jàng lu rëy rëy ndax jigéen kilifa la quoi ndax tey bu amee borom kër bu génn tey say dem ñooy say kilifa looy def di seeg ñoom ba nag même moom bëgg na koo jël soxna est-ce que Guèye moom wala du nekk ak moom wala Guèye koo jël soxna pour loolu loolu lépp am na lu si nekk <clears throat> mais loolu lépp incha allah bi dina leer bi nga xamante mooy mère Sofia génn na wax la ko ki ni mooy euh, baron def ak ki nga xamante ni mooy ma jaaga may si joo ak Diomaye kenn ku ne pël politique bëgg rey si doom bëgg rey si jabar monsieur le maire bëgg rey ak njabootum sacrifice ñëpp tey moom mu génn toog ni dañ ko sacrifié woon mais dafa mooy te ñoom kenn nit la suloon ak kon taxaw seetlu jam ndax tey am na nit ñoo xamante ni bu neew bay dugg si politique dañuy jar ñu rey bakkan def lu leen neex yaakaar ni yàlla moom gisu leen ah yàlla leen jox nguur gi de di leen may ñuy am nguur gi ñu xam ne ñoom yaakaar ñoom ñoo koy may si mu déedéet yàlla te yàlla da leen daal laat fii nguur yàlla rek moo jeex mooy kertan gi di borom gi di borom man-man gi kon tey ku fi nekk si nguur na sóoraale ñoom bis mi ngi ñëw. na sóoraale mi ngi ñëw nguuram jeex tey nguur firaaw na war naa jox ñëpp xel war naa may képp ko mi ngi xëcc nguur ngir yàlla rasul nga xam ne nguur gi dafay jeex. te bu jeexee sëñ bi boo dee si biir bàmmeel nga jëm ba lépp looy dig nit ñi